tudd leen ci téere yoon ci yàlla Isa melal leen ko ab tool boo xam ne baykat bu nekk noonu lay bëggee toolam mel noonu kon ñooñu ngeneel bu ñu am bu rëy la amul kenn koo xam ne dina leen dab walla jege leen kon ñooñu ñoom ñoo war a nekk suñu kanam ñu xool leen comme ay royuwaay xool leen comme ay comme ay exemple borom bi subhaanahu ba léegi di wax gërëm bi nga xamante ne gërëm na leen ko di ko xamal ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw mu ne laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka taxta ash-shajara borom bi subhanahu wa taala gërëm na anil mu'minin fii nag mu'minin yooyu mooy saxaabatul kiram ya ayyuha alladina خير لكم إن كنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi gannaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu wa alihi wa ngi dénk suñu bopp di leen ragal borom bi subhaanahu wa taala ak bàyyi xel yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci pas-pas ci jaamu yàlla ci jikko yi ñaari mbir yooyu ci la texe àdduna ak àllaaxira nekk yàlla nañu ko borom bi subhaanahu wa taala defal mbokk borom bi subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama waaye mu def ko koo xam ne fow mu dund ci biir ay moroomam ñu niroo ak moom maam ay doomu aadama mu soxlaal leen ñu soxlaal ko waaye it fépp foo xam ne doomu aadama ma nga fa ak lu mu mënta gëm am na loo xam ne moom lay teg ci kanamam loolu nekk li nga xamante ne moom mooy royu borom bi subhaanahu wa taala noonu la bindee doomu aadama waaye ñu bëree bëri ci doomu aadama yi ñu ngi wut ay royukaay waaye ndax ñooñu ñoom ñooy royukaay est-ce que loolu la borom bi subhaanahu wa taala santaane pour ñu koy xool mbokk yi ñu xam ne ki gën ci xeet bi ci doomu aadama yi moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaawam topp ci li ñuy tuddee ulul azmi min ar rusul ginnaaw gi yeneen yonente yi tegu ci waaye ñooñu ñëpp bi ñu weesoo ñi gën ci doomu aadama yi moom mooy saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala def leen gënale ci keneen ku dul ñoom ngir dëgg-dëgg ànd bi ñu àndoon ak yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax yàlla moo tànn yonante bi alayhi salatu wasalaam ba pare tànn ñi war a ànd ak ñoom ak moom ak li nga xamante ne moom la ñu jàppalee diine borom bi subhaanahu wa taala li ñu wane ci ay ngëneel ci wàllu pas-pas ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu jikko ci mbir yu rëy yoo xam ne nekk na sabab bi gën a rëy ginnaaw tawfiqu borom bi subhaanahu ci ngañaayu diine ji ak tasaaroo bi mu tasaaroo ci mboole mu ci mboole mu àdduna ñoom ñoo joxe li nga xamante ne moom mooy seeni bakkan ak li nga xamante ne moom la doomu aadama di gën a bëgg muy alal ngir tasaara diine borom bi subhaanahu wa taala ak aar défendre message yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon dafay war ci bépp jullit mu xam dayo bi nga xamante ne am nañ ko ci lislaam mu xam wàccuwaay bi nga xamante ne moom la leen borom bi subhaanahu wa taala jox te loo xam ne yaxu alquran ak waxi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom ñoo ko saxal dafay war ci bépp jullit xolam set wecc làmmiñam set wecc ci saxaaba yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xolam daa war a set ci li nga xamante ne moom mooy inaane leen wala di leen bañ wala di leen xeeb wala di leen noonoo wala am keñaan boo xam ne danga koy am jëmale ko ci ñoom walla di leen sit sa làmmiñ dafa war a set wecc ci li nga xamante ne mooy di di leen di leen wala di leen wala di leen rëbb wala di dal ci li nga xamante ne moom mooy seeni der ndax borom bi subhaanahu wa moo leen màggal loolu nag ñu bëree bëri duñ ci ay xel ci jullit ñi waaye am na ñeneen ñoo xam ne dañu jullit yit loolu nekk na bunt boo xam ne ci la ñuy jaar pour attaquer diina borom bi subhanahu wa taala ndax képp koo xam ne yaa ngi attaqué saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam attaqué bi leen di attaqué di ñoom nga attaqué yonente bi alayhi salatu wasalaam nga attaqué waaye ki attaqué yonente bi alayhi salatu wasalaam diine l'islam ci boppam la bëgg a neenal kon loolu moom mooy seen jubluwaay waaye du rek yem ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaabatul kiram kon war nañu xam jiitu bi nga xamante ne moom la moom la ñu jiitu ci lis moom la leen borom bi subhanahu wa taala xéewal ñu njëkk gëm yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam mbir yi nga xamante ne def nañ ko ñeel diine borom bi subhanahu wa taala ñu leen ñaal yërmade ak njéggalu borom bi subhanahu wa taala loolu la yàlla santaane mu ne ñi nga xamante ne dañoo dikk ginnaaw ñooñu yaquluuna rabbana agfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman yàlla ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu ak suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiitu ci lislaam ndax kat ñoom ñooy yoon wi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala ci ñoom la jaarale ba lislaam ñëw ci ñun moo tax mu ne wala tajal fi qulubina xillan lilladina amanu ab mbañeel bu ko def mukk suñu xol yi mu jëm ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sahabatul kiram borom bi subhaanahu wa taala di leen tagg ba léegi mu ne wasaabiquuna al awalun min al muhajirin wal ansar ñooñu ñoom ñooy saxaaba yi ñi jiitu ci lislaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyeekoo Màkka dem Madina ak ñi ñu fekk Madina walladina tabaahum bi ihsaan ak ñi nga xamante ne topp nañ leen nag ci rafetal mooy topp li ñu toppoon ci ay pas-pas ci jaamu yàlla ci jikko mu ne radiallahu anhum ñooñu yàlla gërëm na leen ñooñu loolu saxaaba yi ñoom ñoo ko am radiallahu anhum ay seede yu bëree bëri borom bi subhanahu wa taala leen li nga xamante ne moom mooy ngëm yàlla seedal leen ne ñoom dañuy tàbbi aljanna kon boo nekkee jullit te yow sa jubluwaay mooy tàbbi aljanna kon yooyu yoonu ñooñu nga war a jaar ndax seen yoon mooy yoon bi nga xamante ne moom mooy duggal nit ki aljanna beneen yoon boo jaar boo boo jaar rek fi mu la yóbbu feneen la fu bokkal ak bi nga xamante ne moom mooy aljanna mu ne radiallahu anhum wa radu anhu wa ahda lahum jannatin tajri taxtaha al anhaar mu dig leen dencal leen ay tool ay aljanna yoo xam ne dafa dafay daw ci suufam ay sewnde ñu sax fa nee na loolu moom mooy ngañaay bi rëy borom bi subhaanahu wa taala ba léegi di wax ci saxaaba yi mu ne muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi àndoon ak moom dañoo taroon ci yéefar waaye am yërmande bu bare bëri seen biir boo leen gisee toraahum rukkaan sujjada foo gis ñu ngi julli ñu ngi jaamu borom bi subhanahu wa taala lu tax ñu koy def yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana te ñaari bi yooyu la borom bi subhanahu wa taala santaane sàkku borom bi subhanahu wa taala gërëm la ëllëg yowm alqiyam waaye sàkku ngeneelu borom bi subhanahu wa taala ci àdduna ci wërsëg boo xam ne bu dagan la mu ne nag siimaahum fi wujuhihim min athari sujud seeni màndarga mu ngi feeñ ci seeni jëye ci seeni jë ngir jeexintal bi nga xamante ne sujjóot bi ñuy bi ñuy sujjóot daf ko faa bàyyi du rek ay marque waaye leer ngay gis leer boo xam ne boo ko gisee nga xam ne lii borom bi subhaanahu wa taala moo leen ko defal nee na loolu mooy misaal bi ñu leen misaalee ci tawraat téere bi ñu joxoon yonent yàlla Moussa xoolal ci jamonoy Moussa balaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dikk borom bi subhaanahu wa taala tudd saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam tudd leen ci téere yonent yàlla Isa melal leen ko ab tool boo xam ne baykat bu nekk noonu lay bëggee toolam mel noonu kon ñooñu ngeneel bu ñu am bu rëy la amul kenn koo xam ne dina leen dab wala jege leen kon ñooñu ñoom ñoo war a nekk suñu kanam ñu xool leen comme ay royuwaay xool leen comme ay comme ay exemple borom bi subhaanahu wa ba léegi di wax gërëm bi nga xamante ne gërëm na leen ko di ko xamal ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw mu ne laqad radiyallahu an almuminin id yubayiunaka taxta alshajara borom bi subhanahu wa taala gërëm na an almuminin fii nag muminoon yooyu mooy sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain mu ne jamono ji nga xamante ne ñu ngi jaayante ak yow si suufu garab ga borom subhanahu wa taala xam li nekk seen xol ci pas-pas bu wér ci ay jikko yu rafet ci jaamu yàlla yu baax xam yéena yi nga xamante ne moom la ñu am ci tasaare diina borom bi subhaanahu wa taala nee na fa anzala sakina alayhim yàlla wàccee sakina dal may leen dal loolu moo tax ñu ubbi mboole mu àddina mu ne moo tax mu may leen wa asaabahum fathan qariba xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam la koy wane seeni ngeneel te xadis yu bëri la bokk na ci xadisu abi saïd al xudri nekk ci albuxaari ak muslim mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bu leen ŋàññi bu leen saaga bu leen doyadal samay saxaaba maa ngi génn ci ki nga xamante ne sama bakkan mu ngi ci loxoom borom subhaanahu wa taala kenn ci yéen bu dépensé woon lu tolloog Uhud ci wurus ci or li mu dépensé du tolloog lenn loo xam ne danga nga koy natt ci sa loxo wala sax li nga xamante ne moom mooy genn wàll bi wala li tolloog genn wàll mudd li ñuy nattee loxo loolu yonent borom bi subhaanahu wa taala moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax ci xaarisa imran ibn alxusayn radiallahu anhuma yonente bi alayhi salatu wasalaam ne xayru ummati qarni ñi gën ci sama xeet mooy ñii dund ci sama jamono jii topp ci ne sa topp ak beneen siècle ba ca topp imran ne xaw ma nag ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam benn ñaar yoon la ko wax wala wala ñett yoon mu ne ginnaaw gi yonente bi alayhi salatu wasalaam ne dina ñëw seeni ginnaaw yéen saxaaba yi ay gaa yoo xam ne dañuy bëri lool lu ñuy seede te kenn du leen seedeloo maanaam dañuy nekk di bëri wax loo xam ne amul di nar ay warkat lañ te dañuy dem ba kenn dootu leen wóolu loolu mu ngi wax ci jikko yi ak ci pas-pas yi mu ne dinañ nidar sax ay nidar yoo xam ne ñoom dañ ko jooxe duñ ko respecté maanaam wañe ne jaamu yàlla bi nga xamante ne saxaaba yi ci lañ nekkoon dinañ dem ba jullit ñi sori ko sori boo xam ne bu gudd la mbokk yi saxaaba yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga xamante ne moom la moom la leen borom subhaanahu wa ci ay ngeneel ngir ne ñoom ñoo gën ci doomu aadama yi ginnaaw yonente yi loolu amuñu ko lu dul jege bi nga xamante ne jege woon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci seen lépp ci seen i jëmm ci seen pas-pas ci seen jikko mooy bi nga xamante ne mooyoon nañ ko ci sariya yonente bi sallallahu alayhi ak jikko yu kawe yi nga xamante ne amoon nañ ko jikko yi nga xamante ne moom mooy la doon fegal ci mbir yi nga xamante ne doomu aadama da koy jéppi ci wàllu jikko leen ci manqué manqué yi nga xamante ne dina dal doomu aadama waaye ak gàkk-gàkk yi nga xamante ne dina taqal doomu aadama mbokk yi saxaabat yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo boole woon ay melokaan yu kawe comme liñ ko waxee dañoo joxe seeni bakkan seeni alal di digle lu baax di tere lu bon te ragalum ci woon dara noonu la mën a nekkee ndax borom subhanahu wa moo leen tànn ngir ñu ànd ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam ngir ñu yenu sharia borom subhanahu wa tasaare ko ci àdduna ñoom ñooy ñi nga xamante ne borom subhanahu wa dafa jëloon seeni bakkan ak seeni alal ngir wecceel leen ko ak li nga xamante ne moom mooy aljanna ñu jihaat yoonu borom bi subhaanahu wa taala dëgg-dëgg jihaat tasaare lislaamam ci mboolee mu àdduna waaye ñoom ñoo jiitu ñëpp ci bépp yiw moo xam ci jihaat la moo xam ci woote la jëmale ci borom bi subhaanahu wa moo xam ci teere joxe la ci lislaam moo xam ci ay naafila la moo xam ci yeneen jaamu yàlla yi la fa radiallahu anhum yàlla na borom bi subhanahu wa taala na a dolli waa mi xéewal seen kaw jëlal misaal yi ci wàllu jihaad jëlale nañ waaye jëlal misaal yi di ñëw yoo xam ne yu ndaw la ndax jihaad comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee moom mooy darbatu sinaamil islam waaye ci may daan joxe ci terrain dépense fi sabilillah ngir borom subhanahu wa taala gërëm la ak saraxe sa alal jox ko say mbokk ak jël sa mboole mu alal teg ko ci li nga xamante ne moom mooy ci yoonu yiw ak defar liñ ci nara tudd sax du du doy ndax ñoom la borom xam-xam yi ahlul yadi tuula maanaam ñoom dañ doon dépensé rek ci yoonu borom subhanahu wa taala te kenn du leen raw ci loolu al imam ahmad ak ibnu maaja dañoo soloo benn xadis bu wér jëlee ko ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na maa nafaani maalun qat amul jenn alal joo xam ne amal na ma njëriñ lu ëpp li nga xamante ne moom la abu bakr joxe li ma amalee njëriñ amul benn alal neen bu mu waxee loolu Abu Bakr radiallahu anhu dafa jooy ne ko yow yonente bi alayhi salatu salaam man ak sama alal yépp yaa ñu moom kon dañoo war a nekk ci li nga xamante ne moom mooy yoonu borom mi subhanahu wa taala ñu jëlee ci Abdurahman ibnu Samura mu ne Ousmane ibnu Affan dafa dikk loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yi nga xamante ne yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ngi waajal jullit ñi waajal armée bi nga xamante ne moom si jaysul usra xeex boo xam ne taroon na lool nee na mu indi ñaar téeméeri dinaar lu bëree bëri la suñu jamono nee na mu teg ko ci wetu yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi jël alal ji di ko xool di ko xool ba pare di wax maa darra bna affan maa amila baada al yawm mu nekk garaat bu rëy mu nekk garaat bu rëy ci wàllu dépense ci yoonu borom bi subhaanahu wa taala ana jullit ñi jamono yi ci problème ñi nga xamante ne jullit ñi ñu ngi koy jànkonteel ay jullit ñu ngi fi bu ñu ndekkee duñu añ bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree mën nañ fanaan yeewu te duñu ndekki te am na ñoo xam ne loolu am nañ ko ba weesu ko te seetaan seeni mbokku jullit yoo xam ne ñu ngi ci loolu ana ñi nga xamante ne seeni alal mat na nasib nisaab pour ñu génnee ci asaka waaye sàgg sàggane mbir moomu te nekk alal joo xam ne moo mootuñ ko bëri na bëri na te pourtant saa su nekk dañuy dellu ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yi te lii moom moo nekkoon seen i seen jikko kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Ousmane ibnu Affan li nga xamante ne moom la def nii amul kenn koo xam ne dina def loo xam ne dina tolloo ak moom yonente bi alayhi salaam di ko baamtu di ko baamtu ibnu Omar radiallahu anhuma mu ne baayam Omar dafa dem ba am benn suuf tool ci biir xaybar nee na omar dikkal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko am naa benn suuf soo xam ne mosuma am alal ju day noonu lan nga ma ci digal yonante bi alayhi salaatu wasalaam ko bu la neexee maanaam suuf sa si boppam bu def ci yow ba léegi nga moom ko waaye li fay jógee nga koy saraxe omar radiallahu anhu def loolu ne suuf si def na ko li ñuy tuddee waqf maanaam kenn du ko donn duñ ko may kenn waaye lépp loo xam ne génn na fa ci jullit ñi lay dem te tool la woo xam ne lekk bu bëree bëri da doon génnee mu ne kon loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaraa yi ñi ñàkk ñi jege ak ñi nga xamante ne ay jaam lañ ak ñi nekk ci yoonu borom subhaanahu wa ak gan bi nga xamante ne sax dafa wàll ci ñëw nee na ñooñu ñëpp mën nañ jëfandikoo ci torom waaye bu ci kenn jaay bu ci kenn jaay dara bu ci kenn bu ci kenn jaay dara xadis boobu mu ci Buxaari ak muslim jiitu bi ñu jiitu nag ci jaamu borom bi subhaanahu wa ak xër bi ñu xëroon ci bëri li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla loolu borom bi subhaanahu wa wax na ko ci aaya bi ñu waxoon sànq taraahum rukaan sujjada foo leen gis loolu nga fay gis ñuy rukoo ak di sujjóot di jaamu borom bi subhaanahu wa di sàkku yiwu aduna ak allaaxira li koy màndargal mooy boo xoolee seeni jë gis leer boo xam ne julli moom moo ko fa def kon borom bi subhaanahu wa taala daf leen melal ci na ñoom dañoo bari ay jëf ci liggéey waaye dañoo bëri ay jëf ci jaamu borom bi subhaanahu te loolu moom mooy jëf yi gën a baax mu melal leen ci ne ñoom seeni jëf yooyu moo xam jëfi aduna wala allaaxira saa yuñ koy def dañ koy sellalal mu ñeel borom bi subhaanahu wa taala seen mboolewu jëf mujjee nekk jaamu borom bi subhaanahu wa taala ak loolu ñu xem même aljanna borom bi subhaanahu wa mi nga xamante ne dafa ëmb bépp ngeneel boo xam ne borom mi subhaanahu wa taala na ko doomu aadama ci wërsëg bu yaatu ci borom bi subhaanahu wa taala gërëm la wax jooju nag ñu wax borom bi subhaanahu wa taala simaahum fi wujuhihim assuddi bi mu koy firi dafa ne assolaatu tuhassinu wujuhahum maanaam julli moo doon taaral seeni seeni xar kanam julli moo doon taaral seeni seeni xarkanam kanam boo leen gisee rek nga xam ne ñii ay jullit lañ jamono yi di nga tas ñoo xam ne di nga leen jaawale ak ñeneen di nga leen jaawale ak ñeneen li koy waral amaana ñu ngi julli amaana julli wuñ ñu ngi julli defee wuñ ko ni ko yonante bi alayhi salaatu wasalaam doon defee ñu ngi julli ñu ngi tàbbi ci yeneen i mbir yoo xam ne mu ngi leen di gàkkal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 فاستغفره إنه كان غفارا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون